Maate Balde Pakala ak ma ne ko ñeenti ñi ñooy yaakaaru Pikine tey suñu borom moom la fi génne tey kon tey sama li ma li ma li ma doon ñaan tey yàlla defal na ma te li laa doon ñaan waaw ñun ñëpp ñu nekk benn ama suma rakk la yenn saa day ñëw fii ndogalu fii fii suñu kër këram la seen kër koo fi fekk du kumba kër googu suma kër la waaw billaahi wallaahi ma bëgg magam nag koo xamante ne teguma ko fenn fenn waaw billaahi muy suma xarit muy yàgg ma génnee ci lu ne nit ñi dañuy dégg ni xarit xarit teraanga moo njëkk jóge ci moom ñëw ci man paate waaw moo gën a tax nag ma jàpp ko waaw daf ma jàppal ci ma nekk mu fekk ma ko Amady may wax Pikine yëpp nañ ko jàppale waaw waaw nañ ko jàppale de parce que ñeenti at la toog dégg nga on waaw cinq onkul yi billaay wallaay dala ànd ak ngorom waaw ànd ak ngorom kon ñun waa Pikine damay ne nañ ko ñëpp a jàppale. ngir wax daje nañu keroog ci live bi wax naa ko waaw nee naa ko ñëwal rek daanu waaw bul def da day ñëw rek daanu waaw macha allah sant yàlla noppaliku la la macha waaw mais bu mu mel bu mu mun demee trois mois yëpp garaaw ñun ay escorte lañu xam na waaw. waaw am naa tànn bu baax moo mais Abdou Ba Abdou Ba tey ñu ne dana am naat day défendre Ama bu waxee bi ci Ama ñu bari nañ moo jaay Ama. waaw ba waaw bu ma défendre xam nga. mais daf laa jaay nag. waaw mais bu ma jaay maa mais mais non su ma naan jël boo xamante ni bii daf ciy wax rek. dañuy ko xam nga yeneen mbër yi yeneen mbër yi ay mère ay mbokk famille lañ. dañ baax day xool làmb ba ñëpp ba ñëpp demee ma ko fii ba ñëpp demee Igri Fall moom affaire sa Igri Fall lay toog man sama premier sama premier combat ba moom moo engagé après laaj na sama message ma ko koy mu da ko mérite woon Igri Fall waaw mu nekk nit bu baax xam nga man fan lay muy dara kooku nag ku baax la xam nga waaye xool rek lay waxee bu ko nit ñi jàppee ñu wax moom day bëgg di ambiance kon man la waaw maa la gën a kontaan di ñaan yàlla yàlla jàmm yàlla di ñaan jëmm ji comme ni ma la waxee rek dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom may gudd fan may wér gu yaram comme ma la wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm xam nga wax dëgg yàlla ku nekk rek gox bu nekk rek feebar bu am ku nekk Pape Sarr wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla may xéewal may ko gudd fan may ko wér gu yaram ba lépp lu mu bëgg rek yàlla suñu bopp eggale ko ak sa bopp. mais bopp yi bari nañu waaw mais kii kii kii yaa ngi si taraaka la judd. dégg nga si taraaka la judd. lépp lépp lu ko lépp lu ko jox mu encaissé. moom moo ko jëlee si poosam. waaw def ko si doomu aadama yi. dëgg yàlla franchement. mais nag lii nag euh, ama damay gërëm tamit doomu doomu aadama yi ci dugal seen loxo. waaw dafa am benn euh, Ibu Ibu Sy. di Zoru la Havre nekk géejawaay di doomu géejawaay dafa yëkkati teraanga bu bëri jox ma waaw tey du waa géejawaay waa parcelle waa Pikine ñëpp ci dugal seen loxo kër su Mamadou Ali Ndiaye Pape Ngom Magu Oumar Sène dëkkati na xaalis bu jox ma ci képp ku ma tudd rek damaa fàtte mais ñëpp dugal nañu seen loxo kooku kii la loo sama ah, adversaire mooy sama parrain ah. mooy kii mooy euh, euh, sëñ Massi la ah, sëñ Massi la waaw sëñ Massiré bu Modou Lo moo ne mooy sama pare ndogu yi ñu yëkkati cent mille may ma billaay wallaay waaw waaw donc ama def li ama lii nii moo ma gënal ay millions lii teewaay bi moo ñu gënal ay junni dégg nga li ngeen nekk ci poos bi lépp ama ko def waaw seggi café yi suba ba léegi mu ngi nii sant yàlla rek nel bi nag noo ci nel bi Kantar. Eh? nel bi non man su ma ma woote. waaw Pikine ñëpp ay woote. non dama ne ñëpp ay woote jël fii di teg nel. lépp Pikine waa ñëpp ndel. waaw arbitre dañuy ah. dal. reporter yi. waaw seen sa. ñëpp ay ndel <laughs> quoi. koy wax. wan fi gëlën Bamba.